wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rekk lañu ko def sëriñ Abdul Ahad Mbakke nee na képp koo xamante ni ni yàlla def sëriñ Touba neex na la wuute la wuñ la ak sunu bopp ni sunu bopp rekk lan la def ak koo mën doon koo xam ni nag ni ko yàlla def naqari na la limaale wuñ la ci dara noonu dong lanu nu mel